mondial de l'eau moom bu ñu sañoon moom ndox day am ndax ndox mooy doomu aadama ndox moom boo ko manqué rek manqué nga lépp waaw ndox mooy dund mooy lépp ndax boo xëyee war ngaa sangu war ngaa jàpp te war ngaa julli te war nga raxas ndap raxas du yooyu ndox moo ko yor te boo amul ndox mu sell moom doo ko mën a def. waaw yenn saa yi dañuy ñàkk ndox moom wax dëgg yàlla ba neer yi ndoxu kii ñooy ñëw pompe yi di may ndox fii ci koñ bi waaw. yenn saa yi ñu xëy suba ba guddi ñuy soog a am ndox wala ñu toog deux jours du ñu am ndox oto yi ñëw du ñu may ñuy root waaw yenn saa yi nag ndox mi xelli li xonk cooy waaw normalu daal moom wax dëgg yàlla mais fan yi nag gën na koo def. waa ñun nag yarax moom presque dañuy am ndox bis bu nekk moom waaw pour ñu manqué ndox moom bariwul moom des fois nag bu ñeneen ñi manqué lee des fois ñu tëj tuuti après nag ndox mi ñëwaat. mais du ñu faral di couper moom. Hann 3 bi moom ñu gis Hann Bel-Air fii moom ndox moom dafay jafe moom sama dëgg rek laay wax ndox mu sell sax des fois daf duñ ko am des fois bu temps yële passé presque mat na un an boo ibbee robinet day ñuul kukk di xeeñ foos bi ñu defaraatee tali bi daal xam naa si la xaw a changé tuuti ndax robinet bi da daan tëj tëj bu metti dañ daan dem ci teen yi di rooti ñu sonn des fois paa yi ak jeunesse bi ñoom ñooy woo oto yi ñu ñëw ñu ñuy may ndox waaw ndox mi moom des mu. neex des fois mu nga ki bu fekke ni dafa couper ba yag bu ñewé so ubbé des fois nga gis ci ay pep pep yu ñuul lu melni ni ay wéñ yoyu dang ka ci sentir wala nga sentir ni hot javel bi dafa upp wala lén dal mu sax benn cafka dal ba nga xamni melul won ak ndox mu jëkk mi mom des fois waaw ah, yor ay yu sew té dañuy soxla njox ñun ñuy mag lool bu dul dañuy yenu ay pan ñuy wërte fi ten amu fi amuñu ay teen. de facture yi moom day cher moom macha allah day cher bay bëgg a dee man mii sama borom kër day fay ndox ñii dañuy fay ndox koñ bi waaye facture yu cher. facture yi moom day cher moom facture yi moom day gën a cher moom dañ naan facture yi dafa yomb mais chaque mois moom facture yi bu ñu dañuy gën a cher dañuy gën a cher moom ndox mi moom facture yi dafay gën a cher kenn xamul nag lan la mais ndox mi moom chaque facture yi dafay gën a cher. gën a métti suñu moom ndax boo bëggee xëy yow fajar. nga bëgg a taal amoo ndox nga ubbi robinet yi amoo il faut que sa temps bi da nga koy rey bagé wëri ndox di wuti ndox ci teen bi des fois nga dem ci usines yi ñu lay may ndox te nit usines yi tamit mënuñu chaque jour chaque bu ndox ñàkkee ñu lay may parce que ñoom it dañuy jënd ndox ci ci oto yi loolu moo tax ndox moom mooy dund moom